oui ma ma Matar Matar. nañ nañu enchaîner ci problème mu mbàcc bi inter comme ci bi. waaw d' accord euh, euh, problème mu mbàcc bi. man loolu gis naa ko gis naa ko ma ngoog man loolu gis naa ko bi ma ko njëkkee gis man daf ma metti parce que tant que doomu aadama doomu aadama laa wax de nga ànd ak sam xel nga ànd ak sam xel ngay jël nit du ko photo di ko génne ci ay internet. def yaram am na foo xam ne am na boo xam ne am na boo xam ne kenn génnewu ci ay awraam dañ ko làq waaw d' mais doomu aadama kese kese ku nit ku baax koo xam ne mm. xolu jullit mi ngi ci yow xolu jullit mi ngi ci yow mm. rus ngaa jomb doomu aadama di ko foto du ko dugal ci ay internet man loolu man ku ko képp ku koy def rek jàpp naa ne yow yaa gën a bon ci monde bi man may ma est-ce que moom moom moo moom photo bi dama lay wax rek est-ce moom photo bi moom moo jël photom ñu moo wane ko noonu ñu def ko ci net bi mais mën nañoo beneen photo lay jël présenté boppam présenté ko non non non nangu ma loolu nangu ma loolu. non ma ne photom la sax photom la moom. mën naa nekk photom Ndiaye mën naa Makan mën naa nekk photom mais da ngay gis photo boo xam ne par exemple tey damay photo ah. man nga jël sama sama bopp rek nii par exemple. montage bi waaw. mais kii photom la. waaw d'accord mais bu fekkee ne moom moo ko même bu dee photom la def ko ci net bi c'est pas. non du yoon. li ma ci gën a naqari mooy bi gars yi ñëwee dañ ma fekk ma toog nii ñu ne ma sa kaaxul sa saalum saalum bi lim def sa mbokk saalum saalum bi lim def kaay xool sa mbokk saalum saalum bi man lan pour pour lan ban saalum saalum lu saalum saalum yi defati ñu ne ma génne photo yi ma man wóor na wóor wóor sëñ Tuubaa billaahi wal kitaabi jamono ji ma waxee loolu bu ma daa ko dóor billaahi wal kitaabi parce que liñ ma jiñ sa mbokk saalum saalum bi kaay xool waaw gis naa gis naa effectivement xam naa man damay sot ci côté boobu mm. saalum saalum bëgguma kenn wax ko lu ko parce que lim def yiwut man gis naa ñaari photo yëpp gis naa ñaari photo yëpp yiiwut yëpp a yiiwut ki ko def ak ki ko defa montage ak retage ak la yëpp laa ci yemale yiiwut yiiwul ki ko diffusé ak ñëpp yiiwul même ki ko diffusé dana war na am problème juridique kilifa mooy waaxu ñëw dem ba bu ko xamul it bu laajte nan ne ko kat jiwoo ngi nii ba mu ñëw mu ne ko eh, kaay man de gis naa nga def nangam ak nangam bu fekkee ne yow yaa ko def bu fekkee ne yow yaa ko def lii de l'islam nangu ko say mbokk sax ñu ci njëkk am gàcce mais mag ñi ñi mag ñu baax ñu fi nekk nan wax oustaz yaa ngi fi di jàngale

boo fa nekkee ci groupe bu bon dañ lay mais am na ay boos yu fa nekk ñoo lay couvrir ngay def leen neex association la ñun ñëpp xam nañ loolu ñun ñëpp ñuy dox ci rii bi ñun ñoo xam nañ loolu. man de li ma wax suñu jam suñuy jamono kuy doxaan ci buntu kër gi ngay taxaw paa bi ñëw nga daw léegi fekk ngay taxaw yor sa kool kool booy bi mu wàcc ñëw bu fekk si la nga yóbbu dëgg la neex. problème problème bi mooy. Ah. jël de sanction sévère ci ñaari affaires yi am nii. ba nga xam ne kenn dootul xalaat def lu mel nii. waaw sanction yu metti gis nga ba pare appliqué ko nag. xam nga san euh, euh, affaire bi bi mu commencé mooy ci film brésilien yi bi ñu ko duggee ci town bi. mooy mooy feuilleton yi. film feuilleton yi brésilien yi bi ñu duggee ci town bi. 7 ngay war a julli ji ñu door fi émi kii bi nga yëpp ay julli gi dem ci émission bi. mooy papa ji muy yaay ji ñoom ñëpp ñu toog seede diw e marida e marida kii ku nekk di am koy bëgg koy bañ kerida kerida koy am koy bëgg koy bañ